you biñ départ bi ba ñu àgg bu baax ci lu mel ni loolu moo xam lu baax la. ndeysaan. ndax li baax ñuy baax baax ñun ñu baax nañu. na ko digaloon ñuy ëpp loolu. maanaam foofu la ko ñu daal. dëgg la foofu la demee nii. seen passé bu rëy. waaw. li ñu liggéey moom dañu koy seet. waaw dëgg ci la. ndax mooy mooy lépp moom mooy moom mooy ko moom am nga am de fi am lii ñëpp ko defal ku fi taxaw ku ne te bokk ci njëriñ xam ne yow ci na la tey sigal na la waaw ku ma ko toog ci njëriñ la te taxaw sëriñ sigal na la ak yàlla su ma doon leen dimbali yàggal leen man na sant naa leen baax a baax ndax lañ daa rëy ci man lool ndax da sama lu ne xamaa bu ko ñaa dégg ba jëpp fu ma dégg ay wax ay wax xam nga loolu lu rëy loolu lu rëy li waaw démb ma woowee téléphone ma yoon la ma wooy ne man ko maa daan mun maa ngi ñëw daan mm. man ko ah man de est-ce que ndeke yàlla dana gisale ma déparé te dañu fekk fekk kër Mayka bu gaare nii nu laa taw waxtaan boobu man ko kon nañu man ko def man ko baax na yaakaar sax dana daka man ko gars yi def dana def lan donga nan def nan nan nan goot fanaan fanaan dëkk ba waaye nit ki ku la yëg ku ne moo la sonal waaw li gën a nekk bi nga xam ne yàlla gën a xam sax moom parce que ndogal ci boppam yàlla ci moo def yoon baax mm-hmm. ndax daanaka ci bëggul diine wala ko ci jël yoon yoon moom mun xamu ko ñun ñëpp daanaka ñoom gën a gën a bëgg nañu ci lu baax. lu baax la dëgg <laughs> waaw. yaa xam ne fu ñu fu ñu ñu doon xanaa loo xam ne. li nga xam ne li ñu doon seet bu bëri gi ñu war a dund. loolu moom maa ngi doon seet sama yàlla def. sonn baax a baax a jëf. am na solo tax a yàgg yàgg looloo si yàlla. xir ci jëf jëf yu baax ji ndax ñeneen am nañu bari ñu ko mën te defuñu ko mi waaw ndax man li nga def fii lépp kenn ko seet moom nga sàkk lu yeb rek maanaam def def ci loo xam ne dana jaaru waaye xam naa da ngaa fab lépp def ci moom waaw waaw loolu doo tax nga def waaye kon yàlla yàlla fab xam lépp ñu jox la suñ faa def ko suñ faa def yoon ñu wax def def ko jàkk waaw sëñ bi ñoo ngi lay siyaar wax ci sa kanam dana xaw a jafe tuuti waaye maanaam kàddu yi ñuy jottali rek muy àqida bi ñu séq suñu diggante ak moom ndax daanaka boo waxee mel na ne doy na jëlu sax ñuy waxaat waaye maanaam li ñuy seede ci moom rek mooy ñu ngi seede ne maanaam ab taalibe la boo xam ne bu dëggal la ndax ay ay jaar-jaaram wane na ko ndax moom nii ba magi ba rakki baay magi baayam moo ko indi ci daara ji ci kaw ndigalal baayam ba bu ko bëgg sëñ bi yóbboon daan bàyyam ba ko fekkee am na kàddu yu sëñ bi waxante woon ak moom noonu la ko boo nekkee sama loxo ñetti at ji bàyyi ko mu nekk sama loxo ñetti at dinaa ko def mu baax ma delloo la ko loolu nag firnde ji muy lii ndax jëf ju toll nii ñu bari ñu ko am bu ñu ko amee ci adduna lañ koy jëmee ah, wala wala maanaam la ci ëpp ci adduna la jëm wala ñu defe ko maanaam pour xarew waaye fi ne lii mu def moom mi yàlla jëmmi sëñ Tuubaa ak seex Issa rek moo tax mu def ko kon nag bu la sëñ bi yabalee nga ñëw. Eh, eh, maam Cheikh loolu day seede ni jëf ji yàlla nangu na ko waaw ndax li ko yàlla ni ko yàlla nangoo mooy sirim te firndeel na loolu ndax dalla li ñu xam ci moom te teew daara ji si nekk waaye waan mën nañ ne ay ndax kenn mës leen a gis ci lu ñuy tere ndax si jëng mi di magam nga xam ne yoroon na ko ci daara ji sëñ Mbàkke da ko joxoon lépp kër gi te bu ñëwee du rek moom dara lu mu ko wax dina ko lépp gi solo sëriñ ñuy nekk na ci daara ji ba jóge fi day boole jàmm yàlla ak liggéey waaw te ñaar yooyu mooy sariatu ak aqiqatu kon ni ko lislaam bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg ko noonu rek la ko jëfee te it leneen lu mu defit loo xam ne bëgg nit xam ko maanaam loolu bokkul ci aw melokaanam waaw loolu bokkul ci aw melokaanam lu mu def rek yàlla ak Sëriñ Tuubaa rek mooy tax kon nag yéen ñi nga xam ne lépp mi ngi seen loxo ndax maam Cheikh Issa mooy suñu bunt ci kër Sëriñ Tuubaa ngeen ñaanal ko ñaanal rakkam yi mu ko àndal ak magam yi mu fi fekk yàlla guddal seenu fan ak képp koo fekk ndax it dëkk bi sant sëriñ bi sant na leen xam naa ne moom ñu sant na leen ndax ay bokkam lañu mu fekk si leen fi waaye ñoom itam liggéey bi dañ dañ koo jël jàpp ko seen liggéey bu dee suuf bu dee ndox bu dee lépp kenn ku ne ci ñoom ñoo fay nekk bu fa nekkul ñoo fiy nekk kon nag moom itam def na ko waaye daa ni daa askan yëpp def ko say bokk te ànd ak ñoom dina gën a rafetal mbir dina ko a taaral yow nag moom kenn wax ci yow dara li wax ci yow mooy yaakaar ji am ci yow ak ñoo di njenne maanaam mu mu mu àgg tamat sëkk ci barkeb sëñ Tuubaa ndax wasi kii wasilaam di sëñ Mbàkke dafa la tegoon foo xam ne xam naa ko sëñ Basiir mi xam na ko seex firnde waaw waaw firnde la ci yoo xam ne noonu ñëpp xam kon nag bu la ne yebal la fi ñaari mbégte lay doon waaw mbégteem diggante sëñ Mbàkke ak yow ak mbégteem tur sëñ Isaa gi nag ñëpp ñëw nañ ndax ku fi ñëwul sa doom ñëw na wala sëb sëb ko limee sax da ngay juum naar mi nga xam ne waajuram mooy eh, wasilaw sëñ ji bi jëng di bàyyi sëriñ mii mii nii ànd ak man ak njaboot gi di suñ mag ak ngi topp ci ginnaawam yëpp ay waa kër sëñ Yuusu ak waa kër sëñ Basir genn kenn mañ ko yow yow rek maanaam benn rek mu ñëw dana doy sëriñ mii danoon doy kon nag noonu amee na suñ cett goo xam ne li ñu yàgg suñ kanam ndax am gi eh, nekk ngeen nekk suñu kilifa suñu xol da cay sedd lool tey tey di ñaan mu yàgg ndax ku ànd yéen wërtati dara waaw ndax diggante sëñ Isaa ak sëñ Tuubaa jigéen na lool kon nag bu fi ay njabootam nekkee moom moom nun tiitunu dara jàqunu dara li ñu ñaan daal mooy ngeen yàgg fi te rek waaw yàgg fi daal te wér moom moom moom la ñu ñaan rek am nga am ndax dara amul solo ak teelu bi ndax lii fi ne ku ànd sëñ Tuubaa rek ko man keneen ku ko doon def ab gouvernement dina la ci dimbali wala ab procès wala ab association wala dara waaye dërëm kenn ci ñoom dimu ci waaw kon loolu jëf rek moom ngir sëñ Tuubaa tax jëf ci lépp sëñ Tuubaa rek tax ndax tey bu ci procès jàppoon doo xam kooku nu mu faagoo bu ci association doon weer si mën ngaa mën ngaa gis jëf jërëjëf waaye doo mën a xam lan lañ ko fa tabaxe xetal ko yàlla jëkk ci mujj si mu am solo ndax mooy tax jëf ji yàlla yàlla mën ko kon nag loolu moom sëñ bi bu àggee nga xam ne maanaam sëñ sant na leen sant na baax te bu leen sant noonu ñoo leen sant sëñ yëpp jenn mi nag sëñ bi daa waxoon ne mu jot li ko ay kàddu ñu ngi leen di nuyu di leen jottali am nuyoo ci ci ci kilifteefu Cheikh Abdou Latif Diène mu yebal fi rakkam ji di Cheikh Cheikh Abdou Diène Cheikh Cheikh Abdou Alim Diène euh, mi ngi leen di nuyu yéen bokk yépp noonu la nga nuyul ma bokk yi ndogal gépp gëj naa waaye sama sama xol dafa jóg ak sama xel kon mi ngi nuyu di la jottali am nuyoom bu baax noonu na na nga ma ko jottali am nuyoom ndax ah, jàpp koo ko jàpp ci sayr ak baatin yëg na ko bu baax a baax bi mu koy waxit seere saa ngi nii di sa di sa digg ak Cheikh Mbacke Diène seere saa ngi moom daal nee na xolom sedd na guy ci saw doxin ak moom ak sa jëf ak moom ndax ne amul lenn loo xam ne lii mos na la ko wax te defoo ko ba def loo xam ne sax foog ko woon kon loolu ne mi ngi la ci sant bu baax di ñaanal yàlla kon yi nga xam ne da koo jëf ak ni ko sëñ bi waxee noo ngi ñaan mooy guddal aw fan yàlla guddal sa fan ba lépp loo yéene sa may la nga ak man de wax dëgg yàlla ma yéen bi kon sant naa bu baax ndax ñu ñu baree bari fekke woon nañ ko te nekkatuñu waaye bi ñu te xeer bi de ca laa bokkan kon nag alhamdulilahi rabil alamin sëñ bi noo ngi sant di sant bu baax nga yàgg doxal sa kilifa gi lu mel nii te mu ànd ko wér te mu ànd ko yow kon mu ngi lay sant di la gërëm li ci see nga xam ni moom yaa ngi ci ay xata ak tànk-tànk na ma ko dinaa ko ci wax ndax barab bee nga xam ne de mooy barab sëñ Isaa bee di jenn lagan fa lay jànge alxuraan ba wattu ko kon ne na soxla fa soxla fa daara joo xam ne ji bëgg na lépp loo xam ne lii mën nga ko nga taxaw ca bu bu sa bu sa ndax moom doo jóg ci ay xat mukk akub yan waaye loolu daal bokk na ci noonu nag ma ko xa nag ma ko xamalal waaw loolu daal mu ngi la koy jottali di ci yaakaar sa sa jëf ndax nit ku nekkat jëf jë dañu koy yaakaar sa jëf nag nee lu mu yaakaar la lu mu nangu la lu mu naw la lu muy lu muy sant la it kon mi ngi ñaan suñu borom guddal sa fan yaata sa wërsëg ak say rek ak say mag ak bokki jullit yëpp ak bokki taalibe bi yëpp kon assalaamu alaykum loolu la ma noonu na nga ko jottali mooy amatuma kàddu liggéey bi moom seenu liggéey dama fee nekkoon dong di leen ko defar ginnaaw ak si ngeen nag dina ko moom daanaka amu ci benn kàddu moom li ci li ci nekk ak cant gi nga xam ci war ci ci ci ci mu laa koy laa koy yarale moom ndax mooy sama bunt kon ginnaaw mi ngi fi moom amatuma kapp ci moom la nekk bu baax a baax ma xool si liñ ci dool rek sëñ bi ndax moom fu Seex Isaa teew moom loolu lay aajo nga wax ko am liñ ci dool daal mooy nga ñaan ab tëli ñëw ba egsi fi te boo ko ñaanal yàlla dina ko def ndax sëñ Isaa ku sëñ Tuubaa wuyu ci biir ak biti la ñaan suñu borom ab tëli am fi ak lépp luy am ci ab dëkk mu gën a doolee ko ku fi jaamu yàlla yàlla nangu ko ci barke sëñ Tuubaa ak bañ bu nekk te xam ñaar fukki junni moo ko moo ko tax ay ci alxuraan waaw maanaam wax bu wax ba alam ko lu ko wàcce ab kañ ba jàngee alim wàcce ab kañ ba ba léegi sa baax wàcce ab kañ loolu xaaral ci gën a ëllu d'accord moom at yooyu am nañ fi juróom benn gone yoo xam ne sax lim boo xam ne mokkal nañ fi yoo xam ne alxuraan yoo xam ne buñ ñu ne juróom benn ñu waaye nag lim ñu defal jàngi defe naa itam lu ma juróom-ñetti wanag yoo xam ne euh, juróom-ñetti wanag yoo xam ne ñeent yi ay sankaay la ñeent yi ay kébine la waaw moom la ci def waaw ah, mu daal seen amuñu gën demee demuñu marché demuñu fenn góor ñu taxaw demuñu toolee jàng wàcc la mooy mooy seen liggéey waaw ah, ñu bu baax a baax leen fi ku fi jógee daal yàlla nga fi jógee alxuraan bi mokk ju ak barke ngeen ñaanal ñu ko bu baax a baax waaw ah, yàlla dem itam waa dëkk bi dem sutura fukk fan ak juróom yu nekk ñooy dajale yére gone yëpp ñu fóotal leen ko xam ne amul wenn waajur gone boo xam daal sant lu lu indi solo dàngal ko waaw bu feebaree tam moom ñi boole nañu hôpital benn ci kaabu xale bu feer dañ ko yenn yóbbu hôpital rek waaw moom da waajur moom dara loolu daal am na fa waaw daal yi nekk waaw def nañ fi war a war boo xam ne benn alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah loolu moo tax daayira bu ko nit laaj rek tey sirul asir la koy tudde ndax mooy jàpp ndalu jafe. sëñ Malick mii xar mu Cheikh Abdou Latif mu yebal la fi nee na am na ak cant ak ngërëm goo xam ne da ko jëmale ci jëmmi sëriñ bi nee naa cant googu mi ngi ko ànd ak bokkam yi nga xam ne bi mu egsee fii ñoom ñëpp ànd nañ ci liggéey bi jàpp ko ak jullit yi nga xam ne ñu dëkk ci tudd yi ndax nee na ji jëm ko tàmbalee moom ñëpp ko ànd. ndax ñëpp ci am ak bëgg kenn ku ne am ci xol bu sedd ñëw gi nag ñëw la goo xam ni jëmmal na Cheikh Issa ndax liggéey bi dara génnu ci Cheikh Issa kon nag bu bu àggee fii ay njabootam ñëw teew fi loolu mbégte la moo xam ne mu rëy la ci ci ci ci jëmmi sëriñ mi nga xam ni bàyyi ma ko santoon liggéey bi mu liggéey ko. ñu ñaanal it nga ñaanal waajuram woowu ba yéene ji mu am nii ba santaane ko santaane ko ay njabootam jëf ko noo xam ni koy na jortam ñaan suñu boroom gën koo bàyyi moom itam ci kanamu njaboot gi ndax moom itam kilifa gu baax la ku ku dëddu adduna wala ñoru ko maanaam lu baax rek ko ñor waaw ndax feeñ aw jëmm ak ak jëfinam te loolal ci la yar njabootam gi ñu fekk ci dëkk bi ñoom lépp waaye lañ am muy muy bi rek bëgguñ la dul bi ba leer yooyu tàkkoon ci seeni maam ba ba ñu am ci bi li am loola yàlla gën ko jëme kanam mu nekk njariñ loo xam day nekk njëriñal saay rek baatin ak képp koo xam ne liggéey bi saxool sedd na ci yàlla defal la ci ngërëmal yàlla ndax jëf ju baax yoo xam ni nit ku baax ko jëf ku ko romb yéene ko rek ci biir yéene ji am nga ci ak pay kon nag nga ñaanal ko ñaanal mbooloo mi nga xam ni ñu ànd ci ginnaawam yëpp ak ñi fi fekk nga xam ni ay mbokk lañu ba dëkk ba bañ fi nekkatul ñoom ñoo fi nekkoon dem ba dëkk bi tegoo ci loxo waajuram nga ñaan suñu borom gën leen a boole ñu gën a nekk benn gën a jàppante gën a góorgóorlu ci yoonu Sëñ Tuubaa ak Cheikh Issa ñun nag waxoon rek la ñuy waxaat ci biir kàddu gi mu sëriñ maa ngi njabootu sëriñ bi yëpp ñoo ko bokk wax ay taalibe rek lañ ci seen ginnaaw maanaam ëtt bi nga xam ne mooy ëttum njënd bëgguñu fay doon den lu dul ab taalibe rek taalibe goo xëy maanaam gu dëggu lay doon ndax sëriñ bi nga xam ne moonu meññi yar sëriñ mii ak taalibe lan boo xam ne dara desul ci moom sëriñ bii suñu wasilu di sëriñ Bassirou ngeen ñaanal ko ci barkeb Cheikh saa mu yàgg fi te wér ndax moom tam dal na suñu xel lool lool lool lool ndax mandarga moo xam ne gis nañ ko sëñ Ba ca tàmbali ci mujj gis nañ ko ci moom ci yaatu tabe ci ci ci ci bàyyi àdduna ak lu mu am bokk ak lii kon nag ñun tam naa yéen suñu yaakaar ci lépp ngeen ñaana ko mu wér ba liggéey bi fi mu ko bëgg mu àggale ko moo rakkam yi ak taalibeem yëpp loolu daal moom ñu ngi ko sàkku ci yéen baax a baax waaw te buñ ko sàkku ci yéen ko waxee incha am waaw liggéey bi daal sëñ bi moom mu yàggat sax rek te ñoom ñi nga xam daal ñoom ñoo ko sos yàlla may leen fanu gudd bu ànd ak wér te lépp nag fekk leen fi ñu yàgg ci ginnaaw rek loolu rek mooy wax ji sëriñ bi ñu ñaanal ko moom tam ci ndax taxawaay bi mu tax taxawaay maam Cheikh Issa Diène yàlla may ko wér ci yaram bi may ko ci lépp ba mu àggal li bëgg a àggal ndax jomam it moom itam soññ nañu waaw jomam soññ nañu loolu wax dëgg yàlla ndax sëñ Bassirou Diène wajur sëñ naar bi am na lu mu wax nee na ni mu def kër Cheikh Issa jar na sax maanaam nit ku nekk nga jëmale sa pas-pas ci moom te loolu ñun ñëpp ko xam ndax taxaw na ci doxandoo ci taxawaay bu mat sëkk kon nag it moom te yéen la yéen ñi la ko àndal rek ñu ne seen ginnaaw loolu yàgg te saxal te te ànd ko wér rek barkeb sëñ Tuubaa ak seen barke. lépp moom koy gën moom daal wax nga lépp ah. kon ñu ngi lay ñaanal man daal li ma lay ñaanal bokk ñëpp nga taxaw yàlla ñu ko di ñaanal suñu bi lool fi wér euh, fi mu féetee muy sëñ Isaa mu fam fi mu sëñ dama am lu mu suñ sali wu jën ñuy ñaan suñu moom yàggal la fi may la biir daal moom tiituñu dara daal li ñu ngi leen di gis daal moom ngeen ne suñu kanam suñu xel day dal ci biir biti tiituñu dara te borom bi dana sant mm. ñu ngi fi teew fi rek nii waaw ñi ñëpp faju na waaw ñi ñëpp faju na waaw ñëpp faju jërëjëf jërëjëf li nga laan dal waaw ak ñëpp faju ñaan su borom yàggal la fi rek bu baax baax waaw ah, ñoom ñi itam doon euh, leen a ñaanal rek ndax lii ab jéego la boo xam bi moom euh, ñenn gi yëpp la ko defal muy ab sag boo xam bi euh, lu yaatu la ñaanal leen rek ñaanal leen rek bi ñëpp rek ci ñaan gi Euh, ginnaaw loolu bu ñu sant yàlla bi sant maam si Issa Diène sant jëmm ji fi teew ak si Issa yëpp euh, cant gi nag am na ko taal am fu yàpp yéen ñëpp ñu ngi lay sant yéen ñaanal sunu képp ku fi taxaw tey jii yàlla na yàlla faj sa bàkk faj sa bàkk yàlla na yàlla yokk saw fat bàkk man na ko am na ko am na fi ndax dinaa tey ku fi am na amu ko Tuubaa ndax lii fi taxaw tey li liggéey Tuubaa la te lépp marché a kenn mënu ko du maam Cheikh te moo ko tax a jóg jëm ñi ko liggéey ne day ko ma doy saa su ne guddi bi bëccëg mi wax ak man bu man de mi wax ak man bu nekk ma état bi fu nekk may wax ak man te rakk yi ma bokk ne sax defuñu ko ñoo bokk waaye sax defuñu ko jox na cër bu réy ma sëkk maa ngi koy ñaanal ci kàttan Mansour Issa Diène kon gudd mucc ak amiin di ko defal ñëpp nag di ñaanal waa dëkk bépp ndax ñu ànd rafet na lool saa bu ñu lépp lépp li a teewlu ci yoon sëñ noonu ko ñaan moom it ndax dama na ànd sama baay xam naa ko dama na ànd sama baay xam naa ko moom sëñ sëñ na taxaw ñëpp xam naa ko ñoo ngi ñaan ci carte membre Issa Diène daal mi xam ne moo ci lépp te moom moo te moom ca bokk gudd mucc aju fa jóg amiin amiin képp ku fi jóge te yàlla ko tàggu bàkkaar yàlla ko ko maa ngi jéggul kàddu jërëjëf ah di jaajëf baax wax dafa rafet waaw bi nuy ñëw dem lii ma sëriñ ba bu baax waa lay di ko alhamdulilah ak waajuru baay ji bu jigéen ak baay ah, waaw waaw bi ñuy tax xeeru ñoo ko àndoon waaye ñoo àndoon teew xeer ah, waaw xeer si yëkkati na kàddu yi sànn kàddu yu rafet xam nga ji a fa nekk. waaw <laughs> loolu yàgg na loolu yàgg na loolu yàgg na ma nga ñu bàyyi ci kër gi. dama tamit bu ngeen demee ngeen siyaaral ma sëriñ Cheikh Abdou Latif eh, ginnaaw nag yow sëriñ bi ñu di la jotal siyaaru sëriñ seex eh, wax dëgg yàlla na yaram bu ko ko sax mooy ñëw mm-hmm. wante yaramu xaw kii rek mm-hmm. sawara di moo tax ñëw mm-hmm. eh, di xamal ni tamit njaboot gi sa njaboota mm, ndax ñoom ñëpp ak ñoom benn bopp lañu ndax eh, ndijoor ak càmmañ lañu seen way jur ak eh, sëriñ Madina ñoo bokk lépp ñoo bokk eh, sëriñ Madina ci wàll gune kon nag nee na boo bu ngeen demee ngeen siyaaral ma sëriñ bi santal ma ko ndax teew gom fa teew mel na ni man la ko teewal Euh, ba moo tax su ma mënoon a jug it damay jug ànd ak yéen yéen ñëpp bu ngeen demee mel na ni dem naa euh, loolu euh, xamal ni njaboot gi gépp njabootam ndax Cheikh Issa ak Serigne Madina wan ñoo nekkandoo woon ci fa sëriñ Touba di fa bokk di fa liggéey kon nag tey boo teewee fii Cheikh Issa teew na ahlu njenne yëpp teew nañ fa tabaarakala on sana xaalaxin di la ci sant di la ci gërëm di ñaan taxawaay bi tamit gën a yàgg mm, sëriñ bi ne moom daal léppam daal mu ngi noonu ndax njaboot gi mu seet si ñëpp moo leen yilif kon nag mm, ñu ngi lay gën a siyaar euh, di la ñaanal sa taxawaay yàgg euh, ti barkeel ànd ak ngërëmal sëriñ Tuubaa Euh, kon sang bi xam naa ñu euh, yi amaan yi foofu kàddu bi rek jërëjëf sant. sëñ rabbi la ndax cosaan la yëpp ci yéen la tàmbalee. bu baax a a baax a ngeen ñaan ak ñu jëf-jëf ci sëriñ bi jiitu ci daal. yàlla may la gudd wala julit. barke sëñ Tuubaa. حميد يا المليم suñu yaakaar loolu lépp na sant nañu yàlla bu baax sant way jur ndax mën nañu wax ne lépp yéen la ndax comme ni ko ni ko doon waxee léegi rek si Moussa ñëwee bi ñuy def xeer bi loolu mu waxaan rek ni dama seen yéeneer bi ma ñëw dugal ci sama mat loolu xëy na moo waral mbir mi yëpp kon sant nañ yàlla bu baax sant kilifa yëpp jërëjëf ñëpp sant nañ it njaboot saa saay comme ni nga ko wax ndax mën nañoo wax ne suñu saa moo fi yéenu démb ndax njabootam gi yëpp teew nañ wax nañ ci kàddu yu rafet biñ ñëwee sëñ bi nga xam ne moom la sëñ bi yabaloon daa wax ni nañ jox sëñ Malick biy kàddu mu wax sëñ Malick it na fi kàddu ñëw na fi jox jottali say kàddu sant nañ bu baax gërëm nañu bu baax gërëm nañu booloom ñëpp jërëjëf jërëjëf sant nañu baax asalaamaaleykum وقال لي ما قسما لما تكرمي asalaamaaleykum wa rahmatullahi ah, fii nag moom mooy daara ji ñu jàngale alxuraan waaw ah, waaw fii la liggéeyam loo xëy lu am ci àddina ak àlaxira mi alxuraan ah kon liggéeyil bu toll nii ko liggéey ci alxuraan sëriñ mën a am ni kon suñu borom Tuuba ak barke ndax loolu de at al ki nga xamante mooy muccal nit àddina mu xere boo ko dee liggéeyee la liggéey sàkkal ko màkkaan ay doomu aadama di fa xam ngir yàlla yonent bi ak Serigne Touba ah, liggéey nga yàlla liggéey nga yonent bi liggéey nga Serigne Touba liggéey nga sa maam borom kon yàlla gis na la yonent bi gis na la Serigne Touba gis na la morma bi gis na la li nga liggéey bindee fii gis na ko yàlla na ko yàlla barkeel te yàlla def ko muy sa njiglaay liggéey bi waxumaaye lépp lu sant jëm sooy na ñuy liggéey alxuraan ji defal liggéey bi ñu liggéey ak alxuraan ni ni nga ngeen xayante ni mooy mooy jëmm sunu sama al moog sama sama jëmm ji da xaat di ni lay xaat lépp ko la ko teg lépp am ci àll ak yonte sëñ Tuubaa alxuraan nga sàkkoo la barke alxuraan waaw boole ko askan wi lépp ci barke borom Madina boole ko askan wi lépp waaw ah, nii la yàlla dundale sa dëkku maam bi démb baa ko déggee bañ ko waxee man ko ngan nga ngan googee Cheikh Issa Diène yendu fa démb fu mu ko yendaloon yendu ko ndogal googi moo ci la moo ma gënal man fee maamam yi tëdd ñu defal ko fa lii fii la fii la yelle ah fu la ko mën a ci kaw suuf def ko fii rek la yelle ndokk bi la yàlla mayee la ko fii fi sa maam yi tëdd kon xam gis boobu sa yi yi tey nga xëy umpale wuñu ci umpale wuñu nu noo am lu ñuy umpale waaye ñoom lu ñu fi yendoo démb ñu koy teewee seeral nañ la dimb seeral soo xëy si yal na la dal waaw ndax ñoom day nool yu umpale waaye umpale loo fi def loo ñuy def yàlla nañ lu loolu mën a fi ak gis ëllëg waaye loo fi def rek mi ngi tegu seen bët nun kay noo am si ñoom ak réer waaye ñoom ñu ngi ñu ngi jàkkal loo fi def kon ñu lay seereel kon lii ñu la seereel démb fii yal na yàlla nangu ko sëy ak baatin sa maam yi tëdd fii yàlla sa kenn la démb lii xool sedd na ci lool di fee laa ko waxee ci ma dem ma ni ko nganam nganam ko dey man xam na mu ko defee laa ko bi moom daa ñëw foofee ñu ko ko defee foofu rek la la baaxee ah. foofa nga xayma pe sëñ Tuubaa fekk ko fa dimba yendoog moom ak ak sëriñ Tuubaa yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla may la fon yàggal la fi kanamu jaboot gi nga yàgg di ko lii nga fi def day yal na asaka yi lii ñëw waaw waaw yal na asaka ñëw lii nga fi def yal na asaka ñëw waaw jeng yal na yàlla guddal fan yi barke borom Madina alhamdulilah alhamdulilah waaw jërëjëf jërëjëf bi yal na la yàlla dundal ah, ndax lii day ah, sëñ Tuubaa du fi ñu mën a sanc lii kii lay jëkkër wut waaw ah, doo wut fu mu dëkk jàkka lay jëkkër wut def jumaa ji ah yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla nangu ñaan yi barkeel wax dëgg la ko jagleel ak sa barke waajuru waaye mën nga am jar wute ko wute ko adduna waaye wute ko lu may yàlla yàlla gis na ko yonent bi gis na ko borom Tuubaa gis na ko ma Madina gis na ko jeng yal na yàlla barkeel ko waaw li ñuy julli ci waxtu yi juróom yal na nga daj am barke ba waaw bi li ñu fi jullee yal na yàlla defal yool ba tamit tamit sa njiglaay liggéeyal nga yàlla liggéeyal nga yonte bi néegu yàlla bi liggéeyal nga yàlla liggéeyal yonte bi liggéey Sëriñ Tuubaa kon yal na yàlla taxawu waaw waaw nga jëm ca kanam waaw waaw lii neex na lool ah de day bala nga koo xam te nga gisagoon njëriñ li sax kan dañ ko léegi sa kanam la ne lii liggéeyal nga loo yi li xamoo na ko na nga defee kon yàlla noo ngi ñaan ci yàlla yonte bi sëñ Tuubaa sëñ Mor ma bi barke Cheikh Issa Diène sa dëkku maam bi ni nga ko dekkale yal na yàlla yokk sëy rek baatin sa dëkku maam bi ni nga ko taxawoo yal na yàlla taxawu sëy rek baatin barke borom Madina waaw waaw billahi mina seytaane salaamaaleykum Moussa. amiin. عزيز